سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد muy saar woo xamante ne saar wu bari ay kéemaan la saaru xeexukaay la waaye saaru protection la saaru défense la tamit bu ko defé tay yoon biñ ci waxtaane nak mi ngi aju jëm ci lu ñu kharinatul jabbara al mutamarridatul ghayyara moy jinne ju dëgër bop wala nuñ ko mëna waxé moy faru rab bu waw bop wala faru rab wu dëgër bop wala ñu tuddé ko sax faru rab wu feros comme ni ko yi di waxé léego léeg jinne dana topp ku góor ba du mën a am soxna léego léeg jinne dana topp ku jigéen ba du mën a am boroom kër léego léeg jigéen di def ngoro gu ngoro mu tas góor gu ñëw ba bëgg si ko ba wax waxi takk wan ko ginnaaw dem léeg-léeg jinne ju dëgër bopp mooy faru rab bu dëgër bopp dina ko waral léeg-léeg faru rab bu fiir dina ko waral léegoo-léeg noonu mu jàppee jigéen dana ko jàppee góor ba mën naa yor ñaari soxna mën naa yor ñaari soxna aawo ak ñaareel bu ci aaye ci kenn ki day yëg boppam boo demee ca keneen ki du yëg boppam boo defee nag bu demee ci kenn koo xamante ni xëy na ragal yàllaam demewul noonu mën na ko ne seen soxna si moo la ko def fekk ne soxna sa bari at minha bara ata zibi min dami ibnu yanquba fekk jigéen nga seet na ca wecc ci na till ga seete woon ca dereeti yusufa maanaam jigéen bi defu ko waaye saytaan mën na koo def ndax seen soxna si mën na amee xarina mooy faru rab bu dëgër bopp bu koy fiire ba tax bu sa boroom kër aaye fii du mën dara léeg-léeg mu aaye fee mën dara waaye nag léeg-léeg def defit mën na ko def waaye li ci ëpp ci góor ñi mi dal saytaan moo leen koy def nañ ci bàyyi xel lele nga am ñaari soxna bo demé ci ña aaw bi da nga man dara nga ñew ci ñaarel bi do man dara fekk ñaarel bi dafa am saytane bu andak ak moom nopp ko mo lay firé ak mom bay téy sa katan léeg-léeg tamit nga tak jigen ta bang ko istixaaree seen digënté yeen ñaar ci wërsëgi dëppoo seeni biddiw andana seeni seen wërsëg kasaalika naka noonu nga takk ko rek biir yëpp taxaw fekk saytaan dana def noonu léeg-léeg jigéen boo xamante ne benn saytaan daf ko topp lu yàgg nekk moom di ko manipuler jàpp ko en otage mooy ko xam dafa nekk dañ ko maanaam jigéen goo xam ne saytaan daf ko possédé maanaam daf ko téye moom ko yilif ko nga takk ko saytaane bi nag il faut mu ne la danga koy bàyyi wala sa dara dootul dox moom maanaam sa léppay taxaw kon loolu ñu bàyyi ci xel léeg-léeg comme ni ma ko waxee dana jàpp góor ba fu mu dem ngoro ji ngoro ga tas wala góor gi léeg-léeg mu jàpp la ba doo mën a yor soxna maanaam soxna soo yor tàggoog moom soxna soo yor tàggoog moom léeg mu tëye jigéen tamit ba jigéen gi du mën a toog ci sëy sëy bu mu dem balaa mën a am jàmm faw mu tàggalikoog boroom këram génn ci buum moo tax léeg-léeg xal jigéen gu ndaw wax ne amagul sax 33 ans wala amagul sax quarante ans mais dañ koy limal sëy yu baree bari fekk du ak mbonam du sàgganteem mais saytaane moo ko téye moo ko possédé moo ko yilif di ko manipuler nu ko neexee bu duggee ci say faaw mu xappal ko ba mu ñaan baat mu soog ko mën a bàyyi léegi ne képp ko xam ne saytaane boobu dafa dugg la njëkk ci aar sa bopp ci saytaan mooy ngay muur say cër da ngay wax bismillah ci lépp loo def booy sol rek boo koy summi yonent bi neena won kep kuy def dara ta waxo bismillah shaytan day and ak yow lolu surtout boy lek motax mo mu nañu bu ngeen de óbbali sax moy bu ngeen de óbbali na ngeen jël sen loxo tek ko ci gemiñ da ndax da fay jaar ci sa mën na jaar ci sa gemiñ duggu la kon shaytan day jaar ci ay bën bën bu day jigen la saytaan mën na jaar ci payam duggu bu sagandiko bu sagandiko solut lu jot shaytan mën na jaare fa fa bu ko defee ne képp ko xam ne sa am saytaane boo xamante ne dafa nekk xayyaara mooy seytaane mooy bu fiir wala mu nekk jabbaara da seytaane bu soxor am doole ba noppi nag nekk boo xamante ni dafa wowle dëgër bopp kenn mënu ko tàggaleeg yow dangay ngay fexe ba bind lu saar wi may bëgg a wax muy tabbat yada ba mu jeex dañ koy bind nag junni ak téeméer ak fukk ak benn mooy mille cent onze fois mille cent onze la ñuy bind sóoratu tabat yada buñ ko bindee mille cent onze fois ba noppi nag nga jël saa nga jël mbind mi bu dee ci àlloo lañ ko bind nga raxas ko bu dee ci këyit lañ ko bind nga xooj ko ba mu yàbbi bu yàbbee nga fexe ba am boli xar boli boli buñ ko waxee mooy xar buñ ko rayee doq gi fi lekk gi doon jaar di dugg ci biir biiram mooy boli bu njëkk mag ñi daanañ ko jël di ko wawal jenc ko bu amee ko ak waxoom di metti waxu mooy sa sa gémmiñ maanaam sa put di metti sa doq ñu def ko ci buum takkal la ko mag ñi dañu bari ay tegtal léegi boo fexee ba am xar mu ñu rey xar mi nag moo xam xar mu góor la moo xam xar mu jigéen la fexeel ba am boli xar bu dee ci bees bees bi la wala nga weer ko ba nga xamante ne wow na roof ci bant ba wow nga rocc ci bant bi fekk xoojoon nga saafara si nga jël saafara si jël ab inde inde buñ ko waxee mooy inde bi ñuy tayee moo xam inde bu ñuy tayee ceeb la wala bu ñuy tayee cere en tout cas na nekk inde boo xam ne mas nañ caa tay nga jël inde bi jël ndab li nga xamante ni ci nga war a sangoo saafara nga jël inde bi teg ko ci kawam léegi nag nga jël saafara si nag di ko jaarale ci bën bënu boli xar mi maanaam ci doq xar mi boobu ñu maanaam xar mu ñu rey maanaam doq ga nga jaare la saafara ci bën bënu boli xar mi mooy mooy put gi put yenn ñi pour ñu xam ko ñu bëri ñu xam boli may put jaarale ko ci bën bënu put gi ndox mi di tuuru ci inde bi di sotteeku ci ndab li maanaam da ngay jël ndab li teg ko jël inde bi teg ki léegi nag jël sa pot nag di tànk ci saafara bi di sotti ci bën bënu put gi bën bënu boli gi muy rogalaat di wàcc ci inde bi di dem ci biir ndab li maanaam ci bën bëni inde bi lay jaar di wàcc na fekk nag mu nekk inde bu ñu mas a tayee aw ñam noonu nga koy def ba saafara bi jeex bu ko defee boo paree nga ut sungufu xay bu dee da ngay ut sungufu xay bi nag dangay ut lu toll ñetti ngëp ci sa loxo maanaam ñetti ngëp ci sa loxo lu toll noonu baax na bu dee nag bant yi nga am nga tolloog lu am ñetti takk maanaam ñetti takk xasum xay boo amee puudar bi nag moo gën nga ut ci ñett lu toll ak ñetti ngëpp ci sa loxo maanaam boo tibboon sa loxo ba mu fees nga tibbaat ko tibbaat ko ba muy ñett nga def ko ci biir saafara si ko ci defee nag noonu nga ko ci bàyyi ba mu am ci vingt quatre heures maanaam nga bàyyi ko ci saafara si ub ko ba mu am vingt quatre heures boo amee vingt quatre heures bu la neexee sax nga segg ko ba su ba baanaam ba garambaay gi dañ nga segg ko ba garambaay gi dañ bu la neexee nga bàyyi ko ci noonu ci siwo bi ngay sangoo ko defé nak nga tambalé sangu par goudi nak ngay sangu bokoy sangot nak goudi gi heure bo sangu do génnaat mom bo sangu da ngay bayyi ba euh, loo amé soxla di doxar nga bayyi ba suba man da ngay bayyi ba waxtu wax ne boo ko sangoo doo nga soog koo laal noonu nga koy jappo di sangu goudi gu jot nga sangu goudi gu jot nga sangu goudi gu jot nga sangu goudi gu jot nga sangu ba mat juróom ñenti fan waaw ba mat juróom-ñeenti fan benn yoon ngay sangu ci bis mooy guddi gi te boo ko xasee ba sangu ak yow lu man di xew bu dul farata ju ne këtt ne jon mooy comme nga war a wallu nit wala musiba am nga war caa dem doo génnaat maanaam farata daal lay tax a génnaat waaye doo génnaat di dem di toog ci mbedd di waxtaan ak yooyu déedéet dem di lal basak déedéet juróom-ñeenti fan nga koy def képp koo xamante ni defee na ko nii ñu la ko waxee góor gi ma ko joxoon de nee ma lii lu wer la te nam mako waxe waxee suñ borom dogal na it ne tektal nañ ko ay nit ñu jëfëndiko ko waye nee na gis nañ ci seen bop moy tabbat yadaa 1111 junni ak téeméer ak fukk ak ben nga wut boli xar jaarale ko ci mu jaar ci inde bi dem ca ndab la ba pare nga def ci xasum xay wala sunguf bi bu dee xasum xay ñetti tak bu sunguf bi ñetti loxo nga sangoo ko juróom-ñeenti fan guddi nga koy sangoo boo ko xasee ba sangu dootoo génn ku saytaane dugg ba jàpp la téye la en otage ba mënoo sa dara mënul sotti la yàqal ci côté bu ne sa yaakaar di tas ci côté bu ne incha allah boo ko defee yàlla suñu borom mën laa tàggaleeg moom ci kàttanul yàlla mi nga xamante ne mooy saafara li may wax toujours nag ci garab mooy ñun daal lépp lu ñuy partagé buñ ko dugalee ba noppi dañuy wax ne nit ki na jàppane li muy def ci alquran la ko defee ak garab lépp yàllaa ko sàkk alquran waxu yàlla garab yàllaa ko fi wàccee muy luy saafara bu ko defee boo defee loolu ba noppi nag nga bàyyi li ci des ci loxo suñ boroom xam ne sëriñ du faj aajo yàlla mooy faj aajo ndax bañ na ko ba dañ naan dama bëgg ku ma ñaanal nit ki li muy ñaan moomu ko nit ki li ñaan moomu dara nekkul nag ci nga yëkkati sa alal joxe ñaan waaye nag nañu bàyyi xel ne aajo yàlla moo koy faj doomu aadama amul garanti ndax wóoru ko ba xam ruuxu boppam dana fanaan wala dana yendu ba muy garanteel kenn dara bu ko defee loolu nañ ci bàyyi xel bu baax bu ko defee tamit ñu ngi jégalu mbokk yi nga xam ne ci semaine bi doon nañ ñu jéem a jot xëy na mënuñ ñoo jot dañu am yenn yitte yu nekkoon yu xawoon a jàmp lool moo ñu xawoon a tënk waaye nag ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax a baax waaye comme ni ma ko waxee toujours rek ñi ci jot jotit ku ñu ci woon lañ lay wax mooy la wax ci vidéo yi li ñuy wax ca kaw moom la waxaat ci suuf duñu dig kenn dara duñu dig nit ay faj aajo wala yi dem na ko déedéet yàlla suñ borom subhanahu wa taala lu ñuy liggéey ci alxuraan lañ koy jaarale tegtal bu ñuy joxe ci alxuraan lañ koy jaarale ku ca jëfandikoo gis nga xam ne yàlla moo ko nammee noona ndax lépp loo ñaan yàlla mu may la ko ku la ëpp cër ñaan na ko yàlla yàlla xañ ko ko te du ko wàññi dara ci nguuram gi moom yàlla suñu borom subhanahu wa taala li am solo mooy ñu jàpp ne yàlla mooy faj aajo waaye doomu aadama moom wasila rek lay am mooy def li mu war a def li ci des ko ci loxol yàlla wassalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu